lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmmalul boppam soxna soxna jaara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 Euh, maam Diarra yaakaar naa taxawaay bu am solo la am ci màggalu Porokhane ci wàllu séddale ndox yi ak euh, taxaw gan ñi nga xam ne dañ fay ñëw di ziara buñ la tàllalee suñu micro ana yan kaddu ngay wax ñi nga xam ne ñoo ngi lay teewlu ci liggéey bi ngeen di liggéeyal Soxna Diarra at mu jot ana euh, ana ana yan tolluwaay ngeen ci toll ak naka la demee. ndeysaan ah, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziar baax te di leen balu àq te di leen baal ñaanal suñu maam. sëñ Muntaxa yàgg fi te wér sunu maam sëriñ Seex Jëmb Faal yàgg fi te wér jëwrin nag tey sëriñ Seex Faal borom ndigal lañ fi teewal ndax ñun danoo sosoo rek li Seex Ibra amoon ci kër sëñ Touba muy root ak baleeg buub root ak baleeg buub boobu nag moo nu may tey jii daraja sëriñ Touba dimbali nu ba boole nu ci waajuram wii di sunu maam soxna Mariama Jaariyatulaahi ba lépp luy dugg ci barab bi di jaar ci ñun luy génn ci barab bi di jaar ci ñun li tax na tey mënunoo sori da ngeen a bëgg laaj kàddu gi ma joxe sama jëwrin ba sama jëwrin bëgg a wax ma gis samay boroom muy waake sëñ Cheikh fal boroom ndigal soxna Bintu Mbàkke waaw ak soxna Anta mu sëñ Cheikh ndigal ak soxna Ndey Caara Mbóoj mu sëñ Cheikh ndigal ak soxna Ndey Xadi Fall ak rakkam ak ñëpp mu sëriñ Cheikh Fall borom ndigal ak soxna Maas Thiam. macha allah yéen fan ngeen euh, nekkee dëgg de fan mooy seen base ci ci ci réew mi yéen a ngi Touba wala yéen a ngi Thiès wala yéen ngi. waaw nag ñu ngi Touba waaye liggéey bi léegi wër na mi ngi fépp. Uh-huh. ndax suñu boroom def na liggéey bi ku ñëw ci barab bi rek. Uh-huh. boo xamee ni cërub sëriñ seex Fall borom ndigal mi ngi ci. Uh-huh. day neex ci sa xol. nga xam ne li sëñ Bamba moom. Cheikh Ibra rek la ko jagleel. waaye li maam Mariama Jaariyatullaahi moom. maam na Ndiaye rek la ko jagleel loolu nag moo waral cër bii yëpp lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmal boppam soxna Jaara